comme ni ma ko baaxoo di defee bu ñu dëtmalee màggal bi pour euh, nemmeeku si sëñ bi nemmeeku si comité d'organisation si liggéey bi nga xamante ne euh, ñi ngi koy def si engagement yi nga xam ne Sonatel daf ko jël ak autorité yi ñi ngi sant yàlla bi mu ñu mayee ren encore ñu ñëw defaat visite boobu gis nañu le gouverneur de la région de Diourbel si suba def le point si lii groupe Sonatel indi wala ndam indi si màggalu reen bi naka noonu ak kilifa dëkk bi ñu ngi soog a pare ak le porte parole du xalif général di murit sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér le porte parole Serigne ab Abdou Khadre di ko gërëm di ko sant moom aussi ñu koy ñaanal wér ak gudd fan. groupe Sonatel nag si wàllu technique. dafa yokkaat loxoom ñu ko mënee wax noonu ndax macha allah euh, ñiy ñëw ci màggal bi dañuy gën di bare tubaar fakal la kaar moo tax dispositif technique bi ñu jël dañ ko yokk maanaam lu ñu mën a tuddee ay site technique yokk nañ ci ren ñaar fukk ak juróom-ñett 28 sites yu yees yoo xam ne installé nañ ko ci dëkk bi pour nit ñi mën a woote nit ñi mën a utiliser internet nit ñi mën a jokkalante ak ay technologie yoo xamante ne yu yees la naka noonu niñ daal fexee baaxee LS liaison spécialisée comité d'organisation bi pour que ñu mën a suivre en direct màggal bi loolu aussi yeesalaat nañ def nañ naka noonu wifi si ay bërëb wifi yoo xamante ne dafa dafa gratuit maanaam da koy utiliser te doo fay dara Euh, taskati xibaar yi ngeen doon tàmm nañ di leen baaxee espace presse loolu aussi di dinañ ko defaat incha allah comme nañ ko laan defee innovation yi ñu indi ren bare na si wàllu RSE gannaaw bu ñu euh, indiwaatee basang yi ñu daan joxe ak euh, ay satala ren Orange Money bi nga xamante ne si groupe Sonatel la bokk dafa indi. ay bus climatisé yoo xamante ne si départu Ndakaaru am na 30 bus climatisés yoo xamante ne si màggalu ren bi dañ ko jagleel bus yooyu ñu circuler fii ci dëkk bi di fexe aussi ñi fi ñëw si màggal bi mën a am euh, plat comme ni niñ koy defee ak mberndeel mberndeel moom daal nañ ko def waaye bii Orange Money dafa ñëw yokk ko ak bus climatisé yi nga xamante ne dina wër dëkk bi loolu innovation bu ñu def la yeneen innovation aussi yi ñu def te mu bàyyeekoo si ay ittee yu ñu joxoon daaw ay doléance bokk na ci ay ambulance maire dëkk bi Abdoulahat Ka ñu koy gërëm daf ñu waxoon ne vraiment am na ay centre de santé yi si dëkk bi waaye équipement yi dafa xaw a néew fondation Sonatel daal di décider jënd ñaari ambulance pour jox ko benn bi hôpital Ahmadou Bamba beneen bi centre de santé Daaru Khoudoss incha allah balaa weer wi di dee ñu livrer yooyu ambulance yeneen itte beneen itte bu ñu amoon bu am solo daaw bi ñu fi ñëwee ak directeur général te mu dem visiter euh, complexe Cheikhul Khadim dañu bëggoon ñu jàppale leen ci connectivité defe naa ñenn ci yéen ñu ngi woon euh, semaine dernière bu ñuy ñëw di annoncer nouvelle bi fondation Sonatel toujours décidé la ne dina jàppale complexe Cheikhul Khadim ci connectivité mu itteel leen lool. si enveloppe 300 millions de francs CFA ñetti téeméeri millions dinañ ko jox fondation Sonatel dina ko def foofu mu nekk début de partenariat am na nag yeneen i euh, perspective yeneen i itte yu ñu jox ren daa ñu ko étudier moo xam problème mu ndox mi la moo xam problème mu inondation moo xam aussi toujours si éducation problème mu jàngale gune yi si xarale yu yees te foofu sax def ñu neex trop ñu jox ñu itte boobu ndax ñun am nañu centre numérique bu nekk Dakar Orange Digital Center boo xamante ne dañuy tàggat xale yi te duñu fay dara bëgg nañu décentraliser loolu mën naa wax sax ne décentraliser nañ ko ba pare ndax am nañu benn Orange Digital Center fële ca Ndar am nañu beneen sa Bambey sorewul fii am na beneen balaa at bi jeex sa Ziguinchor nañ ko ibbi bëgg nañu incha allah fii ci Touba ñu ibbi Orange Digital Center boo xam ne dina tàggat xale yi si xarale yu bees yi mu méngoo aussi ak li nga xamante ne mooy seen pédagogie fii ci Touba loolu aussi nekk na yoo xamante ne vraiment mën nañ ko annoncer parce que ñi ngi si déjà ànd nañ si délégation bi ak directrice Orange Digital Center dina def dina def visite bi si jeexal aussi comme niñ leen koy faral di waxee dañu am partenaire bu tudd euh, Kirène directeur général bi Alexandre Alcantara ren dafa tukki aussi fekkeewul visite bi waaye ñu nax équipe am yëpp ñoo ànd am na ay bouteilles Kirène macha allah deux cent trente mille bouteilles aussi dinañ ko def ci disposition wu pèlerin loolu mooy si tënk li nga xamante ne groupe Sonatel ci wàllu technique ak ci wàllu RSE indiwaat na ko di gërëm bu baax comité d'organisation bi di gërëm bu baax sëñ bi ci tertoom ak euh, comité d'organisation bi yëpp di naan yàlla ak fan yi des ci bés bu màgg boobu ñu egg ci Ah, alhamdulilah rabbil tàmbal nañ ci def nag ay jéego ndax am na cinquante bâche d'eau yoo xam ne ren encore dinañ ko indi bâche d'eau bu cinq euh, mètres cubes dinañ ko jox comité d'organisation bi jàppale leen si problème mu ndox bi ci am euh, bi am euh, fii ci fii ci fii ci Touba bi ci des mooy kër xasida bi nga xamante ne ibbi nañ ko samdi wax naa leen li ñu indi si université wante kër xasida nga xam ne Euh, daayira isbu tarxiya ñoom ñoo ko defar euh, jébbal ko sëñ bi foofu aussi contribuer nañ si pour yombale nit ñi recherche yi ak euh, ñaar fukk machine ak juróom vingt cinq yoo xamante ne metre nañ ko à disposition livré nañ ko déjà isbu tarxiya mu ne nii ñoo ngi koy installé